consensuel moo ko def c'est un éminent membre du Jaraaf de Dakar mais code consensuel boobu ñëpp tëggoon ñëpp kontaan ci faa yi ci nekkoon moo indi blocage bi indi élection 93 mu démissionné na bàyyi naa. ca sañ-sañ ba parce que Abdou Diouf était encore président la même candidat mu nommé Youssoufa Ndiaye. sama mag ju baax jooju sama nijaay ju baax jooju sama baay baax boo ko ne moo football day boot loxo équipe 63 moo ko toj. mën a football mën a jàng. yi. Abdou Diouf nekk chef d'État Ousmane Ngom. waaw virulent opposant mu ne Youssoufa Ndiaye a signé l'acte de décès de la justice. xam nga yooyu dafa baax ñu koy fàttali ko xam ne dara surtout si fàttali laa bëgg nekk ci léegi. est-ce que tey bi polarisation bi am si vie politique sénégalaise muy Ousmane Sonko Macky Sall war nañu ko mën a comparer crise politique bi amoon ak bi polarisation bi amoon en 62 entre Senghor ak Dia. voilà xam nga crise boobu 17 décembre 62. ci livre ci histoire Sénégal dama ko ci bind. Mm-hmm. liir naa ndax bind ci ñi nga xam ne ñooy signataire loolu nga xam ne tey motion de censure boobu. Fofana Abdoulaye bi ñu ma tuddee ci la bokk Ousmane Ngom député maire ci la bokk parce que bi nga xamee ne ñëw nañu assemblée nationale te gendarmerie quadrillé ko. Mm-hmm. Yaaba Ndiaye jëw taxaw jàmmarloog ñoom Tamsir Ba gendarme. commandant Tamsir Ba waa Nioro la de moo ko ne il faut pas tirer les députés li la président Lamine Gueye wax il faut le faire Lamine génn concerté wook Senghor l'idée de voter la motion de censure chez lui maison des avocats moo jàkkaarloo moo dend ak euh, pharmacie république foofu lañ ko defee mais Abdoulaye foofu na bi ñu ma tudd bi nga xamee ne coup bi am na jàpp nañ ko Ousmane Ngom ki nga xam ne mooy Magatte ak ak Moustapha Cissé bu Louga moom lañ tuddee Moustapha Cissé Lô quand le droit a été dit les forces de défense et de sécurité ont obéi à Senghor ci la ñu wëlbatiku jàpp Mamadou Dia Ibrahima Sarr wala Jojo Joseph Mbaye conflit boobu nag ay góor ñu bëggoon réew mi ñu ko seqoon c'était des hommes de conviction calcul comme bi am léegi dans le jeu politique lalu ko parce que plus de 200 candidats gars yi dañuy tontin pour mm. tekki ëllëg teguñu ko ci benn conviction parce que Sénégal gu tuuti fii mais fonction de chef d'État mënoo ko foye foye désacraliser ko ba ñu war a mën a nangu plus de deux cent candidats à la candidature teguñu ko fenn. du respiration démocratique. non du respiration démocratique. Mm. Mm. tontine la xam nga da ngay ñëw soxna si ne saa yi kaay leen ñu teg. Mm-hmm. ñu teg ma teg tey ñu tiiril ki kële tiiril. xam nga politique du métier. da ngay am métier. defe ko pour servir ton pays tey je la jette l'anathème sur personne mais le kidnapping de la médiocrité de l'espace politique et de l'espace public il faut le dénoncer. kan mooy responsable bi mooy situé responsable ah très bien en démocratie en république on prend les meilleurs. Mm-hmm. man bu ñu ma tànnalee pour ma ñëw jiitalil ci Walfadjri te aw ma aptitude yi da nga may xeeb. Mm-hmm. moo tax nit looy wut seetal ndax tey. war nga ko war a mën a am wala waraloo ko mun a am su fekkee ne da ngay bokk jeu partisan rek pour war a mën a falu y a problème parce que sous Senghor ça ne se passait pas comme ça on prenait les meilleurs <laughs> et quand il a transmis le pouvoir à Diouf tu peux tout reprocher à Diouf c'est l'école de la méthode et de l'organisation mhm. Diouf a géré le Sénégal pendant pratiquement au-delà des vingt ans yi nekk président dugg ci jeu bi 60 ba léegi il n'a rien pillé ma nga ca France. Mhm. kër amu ko fi amul compte amul ñaar dërëm. te pourtant vingt ans quarante ans au service du pays soo ko nekkoon pillé defu ko. Mhm. xam nga lii dëgg. lu ñàkk patriotisme. non xam nga pendant vingt ans amoo fa kër. non du nokk du ñàkk patriotisme xam nga lan la yar bi ko sengoor yoroon ci détachement wu xaalis. Mhm. Senghor du ko laal soxlawu ko. yar ko ci noonu mu gimmi màgg ci dans l'histoire du Sénégal. Diouf rek moo ci nekk directeur de cabinet secrétaire général de la présidence ñu jox ko fonds politique mu ne nañ ko delloo Senghor ne ko ça distrait dans mon travail. Mm-hmm. ah am na ñu weer ci xaalis. Mm-hmm. te nag xaalis bu ci nit mënoon maandu rek leen Senghor naan xaalis daraja jigéen boo ci nattoo nit jàppoo ko rek mat na kilifa donc dafa am yoo xam ne dañ koy war a mun a waxtaane pour xam li xam ne ewoon na fi démb Abdoulaye Wade dans sa prodigalité dans sa générosité dans sa euh, flamboyance mmh. éminent éminent intellectuel mais Wade tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer il fait partie des géants de l'histoire la complicité qu'il avait avec Léopold Senghor la premier président du Sénégal ba bi mu joxee Diouf pouvoir bi mu naqadi ko parce que jàppoon na ni kooku mooy nawleem la daloon Cheikh Anta ak ak ak ak ak ak ak ak Senghor mais mën nga ko bëgg mën nga ko bañ mais il a marqué les esprits donc 74 mu créé PDS 78 ñu am groupe parlementaire à l'Assemblée nationale sama mag ju baax ji Serigne Diop nekk député à l'Assemblée nationale à l'âge de 25 ans da daan taxaw jàkkaarloog sama beneen mag wax ba Djibo Leyti Ka tu es plus antidémocrate du gouvernement du président Diouf Djibo nag rhéteur polémiste à souhait Mm-hmm. il apportait les répliques et je disais un jour yàgg na Abinta Diallo ma ne ko Macky Sall lii catam amul daanaan yi Abdourahim Agne ci lem tu lem pas Djibouti l'aime, tu l'aimes pas avec brio le régime socialiste parce que ils étaient outillés ils avaient les aptitudes ils avaient les atouts pour pouvoir le faire non non non non Ousmane Ngom Ousmane Ngom opposition Abdourahim mais loolu moo doon tax ñëpp dañu sawaroon tey pour seetaan le le jeu politique mhm. mais suñ demee ba nga xam ne tey c'est la médiocrité qui fait ça mais doyen tamit nee nañu que Abdoulaye Wade bien vrai que mën nañ ko glorifier ci li mu def yëpp a moo indi lii. wa xam nga xam nga xam nga en fait école lu Wade ak école lu Senghor bien que ñoom complicité étaient ce deux écoles différentes. Mm-hmm. oui Wade universitaire la nekk avocat jàngale mës a gëm profession libérale. Mm-hmm. quand il est arrivé li impossible yoon yëpp il a démontré que c'était possible. Mm-hmm. donc mu tijji bëtu nit ñi. won leen leen mën naa nekk. gëmloo seen seen bopp oui parce que tey lii nga xam ne tey président Macky Sall. am na ko ci bilan. mi ngi ko enclenché moom bi mu nekkee premier ministre Abdoulaye Wade. parce que ci moom nag nañ waxante dëgg ba mu nekkee premier ministre Abdoulaye Wade ci la ngir yu bari commencé jël forme bi mu jëlee nag témoin ci Abdoulaye Wade. xam na ne tey Wade képp ko remplacer boo amul jëf ju tolloog moom wala nga dépassé ko sénégalais duñ la baal xam nga fi ne nii. président Sénégal bii di ñëw. oui état de grâce 3 mois mm-hmm. xam nga tey élection présidentielle ñi ku la ni fii la jëm dalaa dafa far dalaa xule la neex kenn xamul ko ngay gagné. c' est l' sur la présidentielle de 2024. Mm-hmm. ndax les deux différents protagonistes comme kenn ki bokkul. pendant longtemps jàppoon nañ ne day bokk ba mujj gi benn moment mu ne leen gor ca wax ja man du bokk. Mhm. muy président Macky Sall. Ousmane Sonko bi nga xam ne bu bokkee dafay gañe mhm. ñu bëri jàpp nañu ne dootul bokk parce que lii ci kanam moom ni muy bokkee dina ma jaaxal. Mhm. su bokkee nag dafay gañe parce que xam nga Ousmane Sonko euh, empathie populaire jeu bi moo ci gën a ëpp popularité. bi ci des. image u martyr bi dafa egsi ci moom. da lay la Ablaye Wade des années 80. ah waaw waaw kaay nag ma xala tey lu leer nañ dafa am lu rationnel am lu irrationnel. tu dama lay wax. Ah, ñu jox ko sa temps yaa ah, tuuti dama damay wax ni déglu rek tey dafa am lu feeñ ci Abdoulaye Wade. oui. li may wax nag c'est pas cartésien c'est irrationnel. Mhm. moom xam na ko. loolu mu ganewul kenn ku dul Ousmane Sonko ñaari homme politique yooyu ko ma a am toute génération confondue mm. dama ne dafa am lu feeñ ci Abdoulaye Wade junj doy na borom xel li may wax Abdoulaye xam ne li ci kenn ku dul Sonko mm. ah dama lay wax lu doy waar xam nga xale bi nga bëgg nga bañ ko ah xale li jënti kaam fi mu ne nii <laughs> dama lay wax de dootul affaire u doole parce que yàlla def nga li muy def ba pare gis nga ñaari leer yi ko séq dam lay wax lu doy waar tey Arfan Bachir Sonko wàllu baay. Hmm. Duudu Ngom wàllu ndey mi jur Xadi Ngom ñaari leer a seex Ousmane Sonko. Hmm? Ousmane du ku ñuy saax saaxee te dama lay wax benn affaire bu ndaw man du ma far faruma Ousmane sama rakk la naa ko magee naa ko fukki at damay wax liy dëgg gis nga tànk mi ngi nekk ci ay xat-xat yàlla def Sénégal yi di ko gën a bëgg. Hmm. dama ci yee nag sama gars yi pour ñu comprendre dama ne tànk mi ngi nekk ci xat-xat xam nga fi mu ne mi ngi ci ay ko nii. a bëgg. gis nga soo bëggee résoudre équation boobu day naqaree dégg naqaree comprendre ci nga xam ne peut-être jubluwuñ ko mm-hmm. suñ ko féexaloon ci la ñu ëpp jàmm dama lay wax lu doy waar la lay wax mm-hmm. xam man affaire magistrature dama ci maandu mm-hmm. ndax ñi ko jàng sax dañ ci réer mba sama ñi ko jàngul tout à xam nga am na benn professeur de droit kàngam la di ko jàngale magistrat abe yu bari ñoo jàng université mu ne ma Abdoulaye Fofana Seck mu ne ma mu ne ma laa ilaha illallah mu ne ma man am naa devoir ñëw ma jàkkaarloog magistrat yi mel ni courrier mel ni ko musul jàng droit code de procédure la ñuy teg lépp ngi ci biir di ko tënk Kéba Mbaye damay wax tey benn affaire boo xam ne ma koy rappelé dama ne Abdoulaye Fofana Seck ma ne ko ah, mu ne ma ku baax ku nekk ci réew mi am na sañ-sañu jàpp sa nopp ne la li warloo ko def ma ne ko lu tax mu ne ma bàyyi bi la jur moo la ko liggéeyal tout moo ma ne man tiijaan la Serigne Abdoul Aziz si mooy sama Serigne waaye Serigne Abdoul Khadim Mbacké mu baax moom moo ma jàngal àddina ma ne ko nu mu la jàngale àddina président mu ne Assane dafa ma ne Kéba dangay ngay atte ma ne ko waaw mu ne ma atte diis ne ko waaw mu ne ko waaye ma jox la benn tegtal mu ne ko waaw mu ko nit mën ko koy atte xam ne dafa fen nga xam ne fen na atte ba mën nga cee dawal yërmande ndax jaaxle mën na ko indi mm. mu ne nit mën naa sàcc nga xam ne kii dafa sàcc nga di ko atte dawal ci yërmande ndax jaaxle mën na ko indi mu ne xam nga nag kan moo a jéggal kan moo matal benn circonstance atténuante mu ne wor kat ndax wor ci xol lay sax. wallaahi yàlla ñu yàlla musal ci wor. amiin yaa rabbi moo tax su ma gisee gars yi ni ñu ko mën a tàmmee ànd ak ñi tey. nga wekk monsieur Banaaru laay ëllëg nga dem ànd ak kaneen sa noon nga dem kii fii ma ne waa mii ñii. lii est-ce que xam nga philosophiquement. Mhm. Pierre Edouard. Mhm. on peut aimer l'art de la trahison on peut mm. la trahison et détester les traîtres tubaab lay làkk de mm. Mm. mais xoolool dafa jafe mm-hmm. gis nga wor moom lañ bëgg a te yàlla nañ ci yàlla musal te loolu baaxul te ndaw yi dañ leen war a yee ci yooyu gis nga dañ ko war a tëggaat ba tax na mm-hmm. man li may ñaan tey mm-hmm. et je le dis solennellement ici à man président Macky Sall je lui énormément de respect et de considération parce que il me énormément d'affection mmh. et il sait que je suis esprit libre mais sañ naa man Abdoulaye Fofana ndax Macky Sall xam naa ko ëpp na fanweeri at dama ni Petrosen laa gënoon miin RTS Mamadou Diagne Aymérou Gningue Serigne Mboup Macky Sall ah c'était les pivots derrière Ousmane Ndiaye qui a été au phosphate de Thiès avant de diriger Petrosen grâce à Diouf. Mhm. xam naa ba nit la. donc man gis naa sax dernière sortie bi. Mhm. Ah. conseil présidentiel gis naa aussi Walfadjri bi mais malgré tout man am naa sañ-sañu en tant que citoyen vis-à-vis de président de la république. Mhm. ma ne ko sama manga dama lay ñaan dawalal yërmande ci Ousmane Sonko ndax nag moom. ah c'est la clé de voûte des institutions. Mm-hmm. gis nga bu justice acté ba pare. Mm-hmm. moom rek am sañ-sañu def li ko soob. ginnaaw bi ko suñ borom bëggee. Khalifa Sall mujj ñu ko lijjanti. protocole de Masalikul Jinaan Serigne mm-hmm. Mountakha Mbacké sama baay ba. Karim Wade protocole de Doha. Idrissa Seck protocole de Rebeuss. Abdoulaye Wade. Diouf jekk na ko ba tàyyi. ba ci affaire maître Babacar Sèye moom la du moom yàlla rek a xam. su ko neexoon mu disqualifié ko non defu ko. Mm. il remis dans le jeu. kon bëgg mu am protocole du camp pénal. déedéet euh, euh, mën na sax bañ am protocole camp pénal mais xam nga am na ci loo xam ne. comme <laughs> mënuñu ko ñàkk régler politiquement politiquement rek lañ koy régler. affaire bi dafa foog xam nga dama ne la xam nga Ousmane. lui dama ne la xam nga Ousmane. xam nga tey damay wax ci waa Pastef fii. Mm. ñu ngi joué film bu rëy. Bassirou Diomaye Faye dégg naa leen sànq ngeen di Bassirou Bassirou rek Ousmane Sonko mën a taal nit xoolal fii ma lay joué ak yéen de. Mm. juróom ñëpp mënuñoo bañ a nekk candidat. déedéet maa lay wax lu leer doy waar tey. xam nga bu Sonko nekkul candidat ñi ñuy tudd ñëpp mënuñoo a nekk candidat. Mm. Sonko am na beneen film bu mu leen di mën naa bañ a nekk Bassirou. du Birame Souleye xoolal du Guy Marius Sagna mais dama lay wax lu doy waar lay wax. Mm. kan lay doon làq na ñaari làq. ñaari film yu ma rejoué xam nga bi mu nekkoon damay communiqué coow li communiqué wul de xoolal jël na bës 3 heures 4 heures de temps coow li bari lool mu ne teg xoolal génn leen Bassirou Diomaye Faye mhm. ils sont dans la haute stratégie sous l'impulsion de son Sonko ils sont dans la communication politique mhm. gis nga réew mi ah je reprends les propos de Kéba Mbaye dof fanaanu fi kaay rek max la <laughs> xam nga dof fanaanu fi soo xalaatee sama rakk ju baax ji xale libu bi xam na ko xoolal xoolal sama ah, sama sama sama rakk ji xam na euh, Sénégal xam nga lu tax mu doy waar mhm. waxuma nga wax de boo xalaatee sa xam nañ fi nga jëm mhm. kon nañu rafetal lépp xam nga président Macky Sall góor ñëpp dañoo war a jóg gunge ko sargal ko parce que li ko waroon li mënoon def def na ko pare ay gi jeex na ba jeexee jeex na donc mhm. dañ ko war a tëggal xam nga la ma ko noon président ca ba muy génn livre am ba moom ma ko dédicacé la wax li ko neex wax li ko naqari ma ne président mu ne waaw ma ne ko nit fu mu juddoo ak nu mu juddoo bu demoo ba nekk chef d'état rek wooyu ba Lat amoon am na ko gis nga chef d'état Macky Sall entré pour la postérité dans l'histoire du Sénégal soo ne Senghor ne Diouf ne Abdoulaye Wade tudd ko kon gàcce ngaalaam li ci des nag na ko arbitre nu mu gën a biir rafet nu gën a rafete ndax tey muy candidat ma am bare ci loolu Amadou Ba mm-hmm. dégg naa ñu bari di ko ŋaañu ànduma ci xam nga c'est le style qui fait kii xadaram gi àndal du Ablaye foofu na sekk mu nooy bi waaw <laughs> c'est ça si lu xalab le boobu bii du man mi jóge ca Kajoor déedéet donc Amadou Ba nañ ko nangul ne c'est un haut fonctionnaire il a son style nañ ko nangul c'est un grand commis de l'État nañ ko nangul ne mënul ŋàññi nit te du ko mës a def. c'est wax ñu ci bari maa la gën a xam Amadou Ba. est-ce que da lay da lay fàttali un peu Abdou Diouf. non Ousmane Tanor Dieng. ah ah, ah nag sama mag ju baax jooju homme d'état accompli. lim naan kenn personne ne sait ce qui se passe dans la tête chef d'état man mission bu ne Tanor dénk na ma ko njabootam xam nañ ko mbokkam xam nañ ko. kenn gënu ma ko woon jege te lim ma dénk am na ci loo xam ne mosuma koo génne te du ma ko génne. te président Diouf mu kilifa ñun ñëpp xam na loolu mais dama lay wax ne la moom la may indil gis nga waa APR ñu ci bari dañu jaxle dama leen di yee ci amadu ba tey xam nga liy xew këram ñeen ñi dem di ko seeti waxtu woo tuddee nit pour ŋàññi ko du ca tontu. loolu mooy lu Amadou Ba soo ko waxee seen mbir bopp nag lu ko jëriñ génne la ca tontu moo tax mu nekk kumpa ci nit ñi am na jaar jaar bi am na dal gi am na daraja bi waaye kër ga nag dafa lëmbe fii mu ne nii. Mm. dama ne la majorité présidentielle bi dafa am lu ci xew. xam nga Aly Ngouille Ndiaye dafa génn mbër bu mat mbër la de mm-hmm. Mame Boye Diao génn mbër bu mat mbër la xam nga la daloon jamono yi Abdou Diouf mm-hmm. ñu ne ji bokk na représente rien ñes na représenté régime bañ sànku mm-hmm. Abdoulaye Wade Macky Sall représente Idrissa Seck régime bi sànku gis nga lii Macky Sall war a gën a mën a résoudre te war koo gën a résoudre majorité bi dafa am lu ci xew parce que majorité bi nag man maa téye ay information ñu ci bari ci biir majorité bi dañu xaar janvier. ndax lan pour def lan. ah dafa am ku ne ci biir majorité bu ci ku ci bari allié te gars yi xamuñu ko Mohamed Boun Abdallah Dionne la tudd. dëgg la dama lay wax lu doy waar lay wax. bari nay allié ci biir APR bari na ko ci biir pouvoir bi gars yi dañu xaar mois de janvier génn gis nga bu demee ba génn filtre parenage di nga xam ne dëgg rek kay dëgg. Hmm. kon nag il faut que Macky Sall recentré waat affaire yi. ndax bala ngay seeti kaneen ko war a mën a nekk sa allié. Mhm. sa biir kër ngay tàmbalee. tout à te tey comme Macky Sall nekkul candidat Ousmane Sonko nekkul candidat man góobu ma nit candidat mën na fee gagné élection au premier tour gëmuma ko. ku ma ko duma ko gëm. ñoom Ba jàll si premier tour. waaw mais néew ma loolu d' accord na xam nga loolu mi la mu indi. Mhm. bi Tanor ne au premier tour premier tour. Mhm. il y a des classiques du PS des dignitaires du PS à l' ay Robert Sagnon ay Jacques euh, Mbaye Jacques Diop. Assane Diagne dañ xool éventuel deuxième tour. Mm-hmm. ba Robert Sagna parce que Tanor dafa ne si tout le monde gagne chez lui. et puis on gagnera par mm-hmm. mais Robert dafa la priqué gagné yomb na. parce que du fief boo xam ne dina ko poser problème mais loolu ñu sóorul woon deuxième tour bi dafa ñëw. Mm-hmm. bi deuxième tour bi ñëwee laa ne Diouf perte na. parce que Diouf n'était pas préparé au deuxième tour. mu renoncé wu Wade jël pouvoir ba. Hmm. Wade ki savait se battre gisul fenn Macky Sall je convoque Mamadou Oumar Ndiaye patron du témoin l' enfant de la presse mon grand frère là. moom la Abdoulaye Wade recevoir. ne ko Omar ndax ñoom ñaar nekkoon nañ soppi di ko def hmm. journal soppi. Hmm. nekk dans l' opposition PDS. dama bëgg ñu waxtaan ci tolluwaayu réew mi. bi ñuy wax ba wax Abdoulaye Wade il voyait le danger ci Niass ci Tanor ak sa Seck Omar kenn ka sañu ko feeñal moo fit ci Sénégal presse bi moo cëp mu ne ko président ñett ñi ngay wax ñëpp duñu menace bi man maa ngi ci biir réew mi journaliste la menace Macky Sall la mu ne ko xamuloo réew mi <laughs> gisu ko woon gis nga yàlla xarañte gim xarañte mm. Salman gis nga ki la na ma wuutu mm. doo ko gis xam nga jigéen mm. ay jigéen ngeen jéggal ngeen mm-hmm. néew na nga gis jigéen bu nangu baaxu jëm nga gis jigéen bu nangu sikku doomam mm-hmm. néew na nga gis jigéen bu nangu daraje yi jëkkëram bu doon wàllu sax mu contesté ko <laughs> yéen nag laa faral le Sénégal kañ c'est le Sénégal des femmes ndax dama ni jom ci ndey lañ koy jëlee mais lu wér laa leen di wax. donc du ko gis. waaye analyse boobu dinañ ko xoolaat. gis nga yàlla mm. kim na ma jox affaire bi. pare na ci waxuma cinquième bi cinquantième bi sax pare na ci. wallaay qul allahumma maalikal mulki tuutil mulka man tashaa wa tudillu man tashaa wa tuzillu man pour quelques minutes rek ñu dégg appréciation euh, euh, euh, Pa Assane. Mhm. appréciation mais je pense qu'il a eu à brosser sax xëy na dañ ciy dugg rek rapidement Pa Assane donc posture président Sall actuellement. on a vu la manière dont il communique. Mhm. récemment avec les Sénégalais pourquoi cette colère. parce qu'on a l'habitude de dire que un président sortant normalement dafa war a nekk ci posture réconciliation mhm. mais pourquoi chaque fois bu yëkkatee ay kàddu rek ñuy sentir ni que dafa mer wala dafay xupp c'est quoi dafa bariwul ñu mel ni ki hmm. wax na ko sànq dafa bariwul euh, dafa bariwul ay ndaanaan ay ndaanaan te daa mel ni kala suuf ndaanaan dégg naa wax ah il a dit wax ko ci suuf rek baal dégg nañ la ah. waxu ko léegi kilifa bi parce que affaire bi dafa laaj ñu la jege ñuy mhm. imagine ngeen li mu fi décrire de 60 à maintenant mhm. daf la jox ne la on avait d'excellents sénégalais aux côtés de nos chef d'état loolu la wax absolument ñoo doon permettre affaire bi bu naree pant lu ne xaw na fi de wax na dëgg de mhm. bu naree pante rek affaire bi man sama papa yàlla na ko yàlla yërëm bu daan wax ci 68. billaay la da ngay foog ni guerre mondiale lay wax. billaay il était syndicaliste da ngay foog ni. mu lay expliquer. Mhm. ñoom lu ñu doon nekkee ay clandestin di làqatu. dëgg la. ñu leen di wër. ça veut dire énormément de choses. Mhm. amaana la même chose nu ngi kaa dund ak Ousmane Sonko. Mhm. kilifa bi li mu fi wax billaay am naa kersay teg ci dara. dama lay wax benn affaire. président Macky Sall billaahi wallaahi tallaahi léeg-léeg daf may am ku jox. kilifa bi xam nga ko may jox. Mm-hmm. xale buy dox rek nii naan waa kii fa mu dëkk. courrier. waaw day soxla ñi ñi ñi bokk ak moom ñëw jël si kër. ne ko ah yow foo bëggoon dem mu ne waaw dama doon seet ñu ne ko waa kaay parce que xam nga lu tax. je fais mm-hmm. nit koo xam ne aa ngay jeexal di dem. Mm-hmm. président Macky wax na par exemple bilan décrire na ko. wax na tali yi ñu fi def xaw ma lan ah boo ko dégloo mooy li ma fi def yëpp entre guillemets ngeen baal ma terme bi bu n'êtes pas fichu de la diir au gens. ay partisans la doon waxal de. oui dëgg la. voilà dëgg la ñi mu dëgg la ñi mu nekkal la doon waxal dëgg li ma fi def yëpp yéen mënu leen ko wax nit ñi. Mhm. Ah. tekki naa leen amu leen fulla tekki naa leen amu leen la wala wala sax est-ce que waxul rek sénégalais yi aussi li ma fi def yëpp lu tax ngeen mel ni gisoo leen ko. non wax ni euh, Salman. Mm. ça c'est les failles et les manquements de la communication institutionnelle voilà dama koy nangul Pa Assane nangul ko président Macky Sall mhm. parce que gis nga Macky Sall loo ko contre contre mhm. xam ne am na bilan c'est dama lay wax rek mhm. il a transformé le Sénégal ci li gis-gisam ak dooleem toll parce que nit aussi da nga koy séddee lii dëgg mais malheureusement comme ni ko Pa Assane waxee loolu man mës naa ci bind article mu jur yenn frustration yi les manquements et les failles de la communication institutionnelle. xam nga nit ki nekk dans le feu de l'action. am na ci loo xam ne du ko gis ki ci bokkul moo koy gis xam nga man regard mi ngi ma bàyyi. Mhm. ci sama moto. bi ma mhm. noonu Macky Sall juin 2004 mooy wuutu Abdoulaye Wade. Mhm. ma wax ko méridien président aussi. yow mu ci bind ko dama ko wax de. avant Macky Sall di renoncer wu. Mhm. nee naa si Macky Sall nous bind regard envoyé ko ko. ne ko président renoncer bul dem. man bind na en deux mille dix neuf bi ak élection présidentielle ma ni tous ceux qui sont à la place de Kelle Macky Sall daf leen di dàq. Kelle dàq sept ya. Hmm. billaay bind naa ko mu jeeg ma téye. Mhm. ngir ëllëg parce que boobu Macky Sall faisait cap sur deux mille vingt quatre. Mhm. man samay bind dama koy jenc dama koy téye xam nga lu tax. Mhm. gis nga soo farul day yomb ci yow. <laughs> man su may décrypter rek damay décrypter. Mhm. xam nga li ma bind ci regard bi ma ne quelque que puisse la forme ou la nature forme bi wala nature bi mhm. Ousmane Sonko sera président en 2024. Hmm. la forme ou la nature. waaw dina ci bokk. dina ci bokk moom ci boppam. wala am ku ko bokkal. ma ndax li ma naan leen ñi tudd ñëpp. ah Ousmane la la leen. Hmm. ñaar ñoo xam ne. mi ngi leen di xool di leen def nii di leen def nii di leen def nii du ma tudd parce que bëgguma gêner ay nit ci ay plan. tey est-ce que amul paradoxe tey ñuy wax problème de communication du président Macky Sall. ak moom tout ce qu'il compte comme communicant. Mm-hmm. Ah, dans son gouvernement et autour de lui. waaw journaliste yi nekk ci gouvernement beeg communicant yëpp. tey ñuy wax mais xam nga xam nga gars yi du ñëpp. Hmm? mais ñi ci ëpp. leur seul souci c'est de se réaliser. Hmm. liggéey ko. loolu mooy dëgg seen bopp lañ fa nekkal. seen bopp lañ fa nekk si te réalisé. xam nga nit. boo nekkee nit mu wàccoog yow dëkk dafa fort. nga xam ne amoon oto amoo woon kër loo fay looyaas jafe woon na la mais ku la gisoon xeeb la. Mhm. nga réaliser en si peu de temps. Mhm. mais war nga koo delloo njukkal. loolu mooy wàllu ñoom ñëpp ñu loolu. Mhm. mais mais c'est <laughs> important. ñëpp loolu fi mu nekk noonu mais je pense que xaw na brosser benn affaire sax parce que nee na que. Euh, ñun ñëpp na peut-être xëy na dinañu am surprise parce que xëy na am na ñaari yëf yu nga xamante ni denc na ko te sénégalais xamaguñu ko parce que waxagu ko moom Ousmane Sonko ci ay ay stratégie wam mais eh, pour le moment comme Bassirou Diomaye Faye lañu dékk dëkk la waxagum que comme mooy candidat pour ñu uti ji ay parrainage citoyen euh, ñu ngi naan que c'est un peu suicidaire un choix suicidaire mais en tant que taskatu xabaar analyste euh, boo ci doon indi say kàddu naka nga gisee euh, tey ci loolu xam xam nga kilifa bi su ma kaa déglu mhm. parce que parfois bu ci ci dégg ci ci déggin ko au-delà de de ki toog nga kaa déglu il faut nga dem ci vécu bi. waay soo demee ci vécu bi di nga am appréhension ci ban sens la jëm. Mhm. parce que léeg-léeg ñu mel nii bu ñoo wax c'est selon. lu nuy yëg lu ñuy xam bu ma juumee rek nga wax ma. dëgg lu ñuy yëg. Mhm. loo xam ni peut-être doo ko yëg. Mhm. parce que Sénégal tamit dafa nekk réew boo xam ni. day am face A ñëpp di gis face A mais day am face B. et et écarte la euh, je déchète la. Mhm. Ousmane Sonko dafa toll ci état bu wax na sànq ne ne ne xeex bi du dooleel nga wax. <laughs> xel la xel la de. xel boobu gars yi war a pour faire face mhm. moom it am na xel bi ko indi fi mu toll nii. Mhm. mais xel bu ko raw permettre ñëpp nee nañu yow yow démb parrainage démb en vingt quatre gis ngeen ñi dajale xaalis. di parrainer di dajale xaalis c'est le seul bu ko fi am. Mm-hmm. di parrainer di ko yow moom laajul sax cotisation faf mm-hmm. parrainer rek la ñu wax. Mm-hmm. nga gis ay nit maa gis koo xam ne moom ay biyam la dajale. ay diim Touba Mbour lu ne na fa dem. xam nga dama ko junj sànq. Uh-huh. Pape ça veut dire boo ko mi ngi nekk ci xat-xat. et c'est la vérité day gën a nekk ci xolu Sénégal damay dimbali sama gars yi ci loolu. pour ñu bàyyi ci xel pour mën koo féexal. parce que tant que ngi ci loolu xoolal. dafay yéeme. mooy position de martyr waaw xam nga jeu d'échec bi ñu nekk nii. jeu d'échec bu rëy waar la nekk. demee bu mag la ñu nekk nii. te Ousmane sonk du cuune. Mm. xale la de waaye du cuune. Mm. ndax dafa am lu laxasu ci wetam. Mm. xam nga politique mooy lan. Mm-hmm. du ëmb day xëy wasin. li wolof yi di wax. du ëmb de doo gis mu ëmbee. politique. doo ko doxaan da nga koy takk. <laughs> Mm-hmm. <laughs> déedéet amul ñëw fii di xool Salman jekk na taaw na macha allah di kii ay kadoog ay kii na non da ngay ñëw rek téye mm-hmm. séenoo rek la Youssou Ndour woon ca way dal mm. donc politique benn guerrier mooy jóge fii rek jël da koy jël politique dafa nekk lu doy waar xoolal c'est de tous les arts bu ma koy lax ah, gis nga ko parce que fi ñuy natt yëpp maa leen di wax ne leen Sonko génnul foofu làq na ñaari kànd d'accord euh, wax foog yëpp tey xam nga dama dégg sama mag ju baax di euh, di euh, dimanche. Mhm. Habib Sy. Mhm. mu ne dafa bëgg moom candidature am su lié à la candidature Sonko bu Sonko nekkul candidat day nekk candidat mhm. waaye dafa nekk candidat transition. ma ne ko Sonko am na candidat transition. en tout wax ne la. xam nga affaire yi. Mhm. li tax ma koy junj nii mun naa tudd ñaari tur bi du ma ko def. Mhm. Mhm. parce que man journaliste laa mais je préfère. Oui. rester un homme xam nga les faits. dañu yem ci yooyu commentaire est libre. mais gis nga bu fekkee ne as gor ñëpp dañuy wax ak yow. man jeu politique ba mu ci dul wax ak man et je Mhm. parce que awma ci par parloo man mooy laa faral mhm. c'est pourquoi moo tax j'ai tous les sons ah mhm. man xam naa ne lal na pexe làq na ñaari mbër c'est important mais comme taskatu xabaar nga pour peut-être un dernier point yéen ñaar ñëpp lañ ci interpeller rapidement jeex na tàkk mais mais Pape laa bëggoon moom moom mu dikk ci hmm. un peu la la reprise des persécutions des journalistes tey jii dans un état de pour le pour le cas Pape Sané xam nga euh, de jouer un rôle fondamental dans le renforcement de la démocratie tout à fait xam nga lu tax bi ñuy wax ni élection Sénégal sàcc nii kenn mënut ko fee sàcc xam nga lu tax depuis mille presse bi indi lu bees c'est ça nan ngay mën a ne xaar yàlla Grand Yoff résultat di ko daanee nan lañ koy sàcceeti mën nga lal pexe en amont mhm. waaye jour ba kenn mënu ci dara déedéet c'est clair kon journaliste sa place du ci prison damay wax mhm. xam nga man la général Moussa fal Mhm. je vais vous faire une confidence. ñuy wax ñëpp maa leen gën a xam. ñoo bokk at bu ñu juddee ay weer laa ko magee ñoo yegg seen dool yi sama si ñoo dëkkandoo internat nangami at. kon xam nga ni xam naa waaj de. Mhm. Mhm. Cheikh Wade ba mu dëkkal Ngaye Mexe. baayam Baye Mor Wade tey moom lañ nommé ambassadeur. Cheikh Wade. ñoo bokk at bu ñu juddoo man ak moom. ne ko noonu lycée Malick Sy bind naa sama livre ne lycée Malick Sy bi ma jàngee nii am na six généro ay ñoom François Ndiaye Jean Baptiste Tine mi xam ne André Tine mooy mooy mooy bàyyam gendarme la woon donc je connais bien ces gens là man bi ma nekkee xale général Waly fay les officiers supérieurs la généraux muy armée muy gendarmerie xam naa ci ñu bari xam nga li tax souvent posture yooyu metti et là waxoon naa ko ci benn émission ci Ousmane Sonko ma ne nag la grande contradiction chez mon petit frère Ousmane li ma comprendre mooy mënoo jàng def ENA ñu former la pour servir état. Mhm. nga mën a attaquer l' état dans son entièreté. Mhm. force de défense et de sécurité magistrat parce que l' état est un rouleau boo xam ne xajul ci benn citoyen. foofu dafa def erreur. ah fondamentalement. ñooñu da leen di bàyyi ak seen cër. d' accord xam nga Moussa Fall da dégg loolu la ko wax du tontu parce que mënul tontu. d'accord mais Pape Sané rapidement waxtu wee dafa donc loo mooy li ma wax rek xam nga sànq bi may wax. Mhm. Mhm. man dama jàpp ne. Mhm. muy journaliste bi du foofu. au delà nag de Pape Sané. tous les citoyens. man li ma gëm. mooy war nañ ci dawal yërmande bàyyi leen parce que gis nga kaso du wàllu góor la prison détruit l'esprit abaisse le moral gis nga magistrat bi lay defal mandat de dépôt code de procédure pénale koy tënk waaye gënalu ko gis nga magistrat bi atte seen bu tas mm-hmm. Mm-hmm. billaahi gënalu ko dafa ñàkk pexe mm-hmm. donc xam nga Ousmane Sonko fa mu nekk tey ci Cap Manuel l'une des condition yi mu pose ñi nga xam ne yëpp dañu bëgg a def médiation man sama kaaw bopp jooyu ko góor ñi nga xam ne ñi ngi nekk dans les lien de la détention ñu xam ne man maa tax ñooñu ku ma bëgg a bàyyi te bàyyiwoo leen du ko nangu. Mm. kon tey xam nga l'ère de la décrispation est arrivée. Mm-hmm. il faut que président mu bañ a dégg les va yàggul. Mm-hmm. bi mu nekkee biir PDS ñu koy bundu xotaal. Mm-hmm. nationale. lu bari xew na fa. effectivement man dox naa ci digganteem lu bari Karim Wade. sama rakk la sama xarit doomu Abdoulaye Wade jooju. ku leen amul buur lay nax. xam nga man. la ma waxoon ma baale ko foofu rek. oui. foofu laa koy termine oui temps bi jeex na tàkk doyen. dama dem Thiès avant élection locale yi. Mm-hmm. damay wax lu ma itteel ndax man gone Thiès laa. Mm-hmm. ci benn ngandam cérémonie Abdou Fall sama mag la sama xarit la. Mm-hmm. mu toog <coughs> torondoo bi ma tuddee Abdoulaye Faure ma ko jàngaloon ni ko en politique on se presse lentement. Abdoulaye Dieye bi nekk AIBD xoolal gottaawu mburoog soo yëpp a ngi toog. ci benn cérémonie mouvement citoyen ma jóg jël parole ma leen nag jàmbaar man ñaay ñi di incarné Mburoog Sow Idriss Seck ak Macky Sall maa leen gën a xam. Mhm. Seck ñoo doon jàng école primaire fii. rondo leen jërëjëf 9 pour 59 may ma rek kaleen <laughs> kii. xoolal xam naa ko bu ne 30 ans xam nga lu tax. ma ne Mburoog Sow dañoo ñàkk ca Thiès. dama ne Mburoog Sow dañoo ñàkk ca Thiès. Mhm. mu mel ne tolle laa def. man leen yàggatul ñu def au cas ñu ñàkk. Mhm. ñu ñëw législative leen nag ah Thiès. ay mhm. est une belle princesse mais une princesse rebelle qui a divorcé avec Idrissa Seck. <laughs> kon jërëjëf euh, merci doyen Abdoulaye <laughs> Fofana Seck chronique bi am na solo ah, ñu ngi lay mhm. jaajëfal lu baax a baax mhm. on espère vous revoir de temps en temps ah, sur plateau bi parce que voilà soxla nañu.